journée Fallou Ndiaye dafa mër Ada Fass ñu gis fii promoteur mag bi Pape Thialis Faye DG maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Ndeye Mbacke jërë nga nuyu ak nga équipe bi nga àndal. gis làmb du lu ñuy laajte waaye bésu Fallou Ndiaye nga ñëw la moo ko waral. waaw li ko waral mooy dama ma enregistré si làmb rek Fallou Ndiaye suñu xarit la nekk promoteur nekk suñu suñu suñu pro donc bu tegee làmb ñu am envie ñëw pour seraan si parce que après dama tey laa gën a féex moo tax ma ñëw seraan si làmb Fallou Ndiaye mu nekk nit ku baax làmb yi aussi neex na. combat bi ñu doon laaj naan dina am wala du am mën na ko wala mënu ko combat bi taxaw na 19 la lan nga ci nar Tapha Tine Boy Niang. waaw lamb Tapha Tine Boy Niang pour le 19 décembre la donc loolu moom waxatuñ ko incha allah arène nationale lay amee donc si kàttan yàlla ñu ngi ñaan suñu borom ñu fekkee ko ñun ko. waaw ñaar ñaari mbër ñoom xam na lu leen war xam nga combat bi du combat bu ndaw combat bu mag la bu amaatee yëpp bëgg donc ñoom ku nekk xam nga lu la war ba ñuy ñëw sànq dégg nga booy ñaalum wax si si si bi nga war a xam ne ku nekk xam nga ni làmb fu mu la toll donc am nañ ci yaakaar que làmb bu neex la boo xam ne amateur yi dinañ kontaan si innovation aussi bu ñuy indi par rapport ak culture bi donc loolu c'est ça sera intéressant aussi. merci beaucoup merci. maa ngi lay fay waa dafa gisee làmb tey ji. waaw làmb ji bari na nit de bari na nit et puis ñi am nañ yaakaar ci combat bi et puis mbër la yu nit am yaakaar ci ñoom moo tax nit ñi ñëpp ñëw et ñin ko tuddee tamit ku nekk indi say nit te loolu mooy làmb am na ambiance bari na coow waaw. ñu dem ci benn journée boo xamante ne nii yaakaar naa ne moom grand combat am ci weeru décembre. diggante Tapha Tine ak Boy Niang lu ñu a ci combat boobu. mooy combat bi gën a jaaxal nit ñi ci làmb ji boo xamee Tapha Tine melokaanam nga xam ni mbër la di yàgg ci làmb aussi war ci am expérience ndaxte si je me rappelle pas bien man Tapha dafa mel ni reporter naa ko làmb 2004. wala ay deux mille waaw deux mille wala deux mille cinq je bien léegi mu doon champion war a bëre ku xew ku ne ci yoon muy booy Niang bokk ci xale yi nu gën a yaakaar ci ñu war a ñu war a jël relève bi te mi ci bunt bi mu doon combat boo xamante ni vraiment. ci la ñu mën a xam ndax booy Niang dina mën a dem ci VIP wala déet ndaxte moom ak Lac de dafa échec ñuy xaar moom ak Tapha te Tapha nag daa bëgg a fi mu ne. combat bi am benn risque ñuy laaj ndax Tapha Tine moo ci la risque ci moom la nekk wala Boy Niang. Boy Niang peut-être. oui parce que champion la daal te combat bu doy waar la daal waaw parce que Boy Niang moo jóge ci defet xam nga am défaite du risque tegalee défaite mooy risque moo la mën a yàqal te Boy Niang ci défaite la jóge moo doon risque bi ci moom la ëppee. ngay wax ñaari mbër waaw ah, ñu ñu li ñu signé rek respecté làmb ñëw def làmb bi. que le meilleur gagne. jërëjëf moom làmb day di. làmb ji neex na lii la bëgg ci làmb làmb moom ambiance daf koy neexal coow day neexal làmb ah yàlla na làmb yi ànd ak jàmm jeex ci jàmm ak salaam mais làmb ju neex la nii. Boy Niang Tapha Tine le 19 loo ci gis. combat bu neex la comme nii rek ñaari ñaari bërëkkat lañu ñaari bërëkkat lañu ku ne mën na daal sa morom. am ci combat ba risque koo ko yaakaar. ah. ñooy eh, risque risque dafa am bi koo ko yaakaar. non amul ci combat. combat la kii daan daan kii daanu daanu mais risque amul ci de ku ne mën na daan sa morom. ñaari mbëri. loolu eh, laa ñaari mbëri xanaa fulla ak fayda rek ñu ñëw ànd ak fulla fayda ànd ak jom. bëreel promoteur bi bëreel peuple Sénégal bëreel amateur yi combat bi neex ku ne ñibbi ak jàmm ak